ma bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi ñu dugg si waxtaan bi. waaw Modou Anta di wax onze billah bisimilah jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi sant yàlla bu baax di sant suma ñaari waajur waa ba 26 rawatina gox bi ma dëkk waa dëkk waa ceeb bu baax di waa ñaxab wala ceeb lambaay mexe bàyyi ma fenn daal maa ngi ñëpp waaw mbool waa ki Daaru Ndiaye ak ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw waaw bool bool bu mag <laughs> képp maa ngi sant bool yëpp waaw ceeb gu mag laa dëkk ceeb waa Mbaba garage Pikine ñëpp maa leen di sant di leen nuyu di leen gërëm eh. waaw di nuyu tamit suma sëriñ baa Jili Mbacke eh. waaw di sant suma sëriñ Baye Jili Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax balay sax maa lay siyaat bu war a wax mm. di nuyu suma xarit sama lépp Sa Touba Papa Ndiaye Alaaji Sa Touba waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di sant Papa Ndiaye sama eh. xarit sama papa sama lépp koy sant di sant sama ñëpp ñëpp ñëpp waaw di sant waa parcelle 1 ba 26. 1 ba 26 maa ngi sant ñëpp di woo ñëpp ci combat bi di sant suma mbokku mbër yi équipe bi. gars yi juum ñoom Tafa mbër xam nga ñoom Jegaan Moodu suñu leader suñu lépp. Mm. waaw gis ngeen gars yi ni ñu ci jàppee ci combat bi. Mm. waaw du ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndam rek incha allah. Mm-hmm. waaw bala maa ñëw ci yaakaar naa sa adversaire di Madji Madji contact bi sànq. waaw contact bi sant ah waaw tar na trop ñun moom nii la ñu dëkkee quoi mm. ñun dañoo pare ci ay combat rek jublu ci ay combat mm-hmm. waaw parce que ñun moom boobu ba tey ñu ngi ci quoi bàyyiwuñ ñun lam mooy suñu mooy suñu gagne-pain quoi mooy suñu métier kon ñun def lu duñ def lu entraînement rek waaw entraînement mooy lépp quoi moom lañu moom la ñu xamee mm-hmm. waaw moo tax mm-hmm. fu ñu fekk rek dañuy tërën quoi waaw sa diggante maaj Madji Madji lan moo la booleeg moom waaw maaj Madji dafa bokk sama yoon rek ñu proposé ma ko muy utal ma adversaire ba sonn aw ma ñu jox ma ko. mu jiitu la ci làmb. bu ma juumul tamit mën na la ci ëpp expérience bëreeg ay ñoo xamante bi ni sax bëreewoo ak ñoom. waaw loolu mun na nekk mun na ma jiitu ci làmb mais tey xam nga xale buy entraîné te tamit ay magam a mhm. waaw boo limee conke sil waaw la. Mhm. nga lim baylaat ancien la nga ñëw fekk fi suñu papa Pambay. Mhm. waaw ñoom Maria. gars yi xam ma rek. mooy loolu daal moo tax ñun xam nga waaw Modou xarañ loo tamit mm-hmm. sunu papa sunu lépp mu kooku mooy sunu lépp ñun Modou Lo ñu bëgg ñun dañ ko bëgg ba pare waaw lu mu def neex na nañu mm-hmm. waaw gis nañ tamit ni mu ñëwee taxaw te lii xam nga di mm-hmm. fierté la su ñun ko quoi dañoo kontaan ci lii di ko ñaanal yàlla combat bi mu jël yàlla nag suñu borom defal ndam bu kawe njortam incha allah waaw loolu du loolu boo mënee bëri xeex coono la waaw boo mënee bëri xeex coono la waaw daa mën xeex <laughs> eh. incha allah buñ ñëwee dinañ xam maa moom ko dàq xeex ak man bëre gisoo combat bu mujj waaw incha allah yàlla baax na yàlla woon capitaine. yàlla nañu yàlla may talak fekkee. ah yàlla nañu yàlla day yàggul yàlla yàlla may talak fekkee. maag moom bokkuñ ci dara. Hmm. wallaahi mi ngi lay seetaan kay. waaw maag moom bokkuñ ci bara wallaahi coono yi ma daj daju ko. moom wallaahi asim. ku la dëggee di teg coono nga naan. yàlla na yàlla fay coono xam nga la dëggee di teg coono ak taal caméra lay wane loolu dafa ñun bu la waaw. billaahi ñun bàyyi ku <laughs> waaw ku ñu yee ku yee boppam bokkul de dégg gaay yi <laughs> ah, mooy loolu ñu ñoo yee suñu bopp ñun suñu mafia bi ñoo yee suñu bopp de ñun xaaruñu ku ñu yee parce que ñoo ëpp te lamb waaw yeewul entraîné te ndeysaan sama umpañ da koy teg tànk tey bëgg mu tëg ak sedd bi nii wallaay yàlla baax na yàlla yàlla dolli sutura mën na bëre am na doole de te mag la ci lamb de wallaahi man leer na ma bu ñu takkoon fii ngeem mag moom ñu jox ñu ngeem ñu contact ba ni mi ñibbee du ndam nga yaakaar wallaahi bokkuñu maag moom yàlla moo yor ndam non xeebu ma ko mu ko du ma jël avance am hmm. yàlla moo yor ndam yàlla ma yàlla kattanal may ma ndam ba jour ba yàlla nañu yàlla kattanal ba jour ba incha allah di nga gis beneen facette mën nañoo xaar sa deux derniers combats yëpp vite fait la sa trois derniers combats sax parce que bu ma jumul ci euh, euh, kii nu mu tuddati vie nan daaw daaw da sandis la daaw da ak saakal deux ak saakal deux waaw ak petit ba Poti Ba Poti Ba laa bëgg a Ba nga jóge teg ci daaw de sandis mujjee sàkkal deux te combat yëpp a gaaw vite fait mën nañu xaar mu gaawee noonu. waaw loolu moom mbirum suñu borom la ko wax damaa ñëw mu gën a mu gaaw mais tamit maa ñaan yàlla mu gaaw mais incha allah moom bu ma songee day gën a gaaw. waaw ma ko songee a gaaw. moom day ñëw moom. waaw bu ñëwee day gën a gaaw. Hmm. waaye ñaan ñu ñëw la man moom du ma xaar. arbitre bu wàccee loxo maa ngi ci kaw. Ousseyn nag di ko sant di ko gërëm. di hmm. woo autorité parcelle yëpp Pape Malick ministre de la jeunesse ñu ngi koy woo bu baax ci waaw ministre de la jeunesse ñu ngi koy woo si am Mansour Ba doom père ba ak père ba yëpp ñu leen di woo ci combat bi bu baax sëñ Dame Dione mhm. aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax Papa Ndiaye suma papa suma xarit lépp moo faati mhm. maa ngi koy sant bu baax sama waa koñ bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn kanji production mhm. aw ma fayam mu doon ta kanji nit ku baax ñu noonu wallahi ndeysaan kanji nit ku baax a ngi noonu. nit ku baax saa nafin bi laa dara de. wallaahi azim nga ànd non te kanji day def te du wax. ndeysaan dëgg wallaahi tafa kanji nit ku baax la. Hmm. te bëgg naa nga dem seeti ko. barke alxuraan karim. E boo demee waaw borom ETDR. E maa ngi dégg gis naa mu defal xaadimanta ab moto boo xamante ni. xamul ñaata lay jar bañ ku wax de. xaalis bu bari lay jar. xaadim bëggul kooku day jàppale jam ñi kon kañ noonu la mel kon yow mosoo xam lool eh, eh, eh, DDR waaw doomu woo waaw ah, doomu woo sama téléphone ngi nii ah doo woo waaw Mouranda waaw di sant Kandji bu baax a baax di ko woo ci combat bi tamit Kandji production mm. di ko jaale jabaru magam bi génn àdduna xam nga Abdou Kandji bi ñu ngi ñu ngi leen koy jaale baax di leen masaw di leen wax fi mu jugee gënal ko fi mu jëm quoi yàlla suñu mm. borom xaare ko àjjana bu baax a baax a baax mm. waaw di woo kanj nag ci billet yi ñu ngi koy woo waaw Mansour Ba maa ngi koy woo ci combat bi ci billet yi waaw sama autorité ko ñëpp maa leen woo Jamil Sané yow mii nii sama premier combat Valdo ak Pape ak ak Pape ak. Euh, Maam Góor Diop déedéet Valdo ci laa bëre sama premier combat. yaa caatu Kër Masar maa boobu e tëgg boobu ETDR moo ma tëgg. mosoo xam lool. kon yow mosoo <laughs> waaw moo daan di sant ñëpp di woo ñëpp ci komba bi. di woo suma waa dëkk ñëpp. Mm. waaw di sant waa Mbaan bu baax. Mm. Mama Diène. maa ngi sant bu baax Cheikh Diouf aw ma fayam maa ngi koy sant mm-hmm. waa Mbaan ñëpp maa ngi sant région de sant mm-hmm. sant waa Diofior mm-hmm. waaw waa ñëpp maa ngi leen sant bu baax bu Ngoy Ngoy Aliou Sylla bu mu nee Mam Ngor waaw maa ngi woo waa kenn Mam Ngor gis naa ni ma taxawoo maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant suma booy koñi ñëpp mu ne Laurent tudd naa booy xarit ñoom Bokar Passoumane Dieng Ndiaw ma kodd doomu maire Wali Ndiaye ñu jàpp bu baax a baax a baax a baax aw ma seen fay waaw moo def waaw foog ma mobiliser boobu <laughs> tukkal es ah, ah. moom bu neexee yàlla danaa ko duy ba mu fees ah. jàpp ko daan ko ci kàttanu yàlla la promoteur yi bëgg de waaw incha allah yow moo daan da yow ne man moom wax dëgg yàlla waa parcelle duñu may jàppale mm-hmm. ci côté mobilisation ñu may jàppale bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. te combat bi damay romb ay xale yu ndaw sax ama Mbacké teel bi mooy premier grand combat wallahi azim ay tout tànk bi mooy premier grand combat ay tout tànk mu doon dañuy fëgg sama néeg di ma ñaanal mbàkk yàlla na yàlla may ndam moo man fépp fu ma daan dem naa ko. te xam ne damay am ndam. macha allah bu neexee yàlla incha allah. combat roi bi. waaw combat bi waaw roi de moom mi ngi noonu rek. non waaw combat la. mais <laughs> Mouranda xam nga dama benn wax bu ma doon wax gars yi gëmuñu ma. Eh, muy lan naan roi bi. Eh. ñi muy dajal nii ñu ñooy ay moromam. ah pourtant la loolu la wax léegi de bala maa ñi muy dajal ñoo ay moromam. ñii ñooy ay moromam. ñii ñooy ama Boy ñaa Ama Baldé hmm. ñooñu ñooy ay ay Sa Thiès ñooy ay moromu roi bi te ñoom tiitu ma ci ñooñu ñooñu tiitu ma ci kenn wallahi koo ci tëggaloon fii Moodu jox ko ngeen mu jox ko ba mi mu ñibbee xalab géwél bi doom eh, non eh, eh, càppaacoli ah, wax nga ko xalab géwél bi càppaacoli bi ah. <laughs> micro lay ndekkee ah ak jëf waaye moo daan daa wallaahi ah, Modou Lo du kenn Modou Lo waaw moo daan daa Modou Lo champion ci biir champion Modou Lo ndaanaan la Mm-hmm. Modou Lo ndaanaan la man Modou Lo heure bu ma heure bu moom di gàtt gàtt dinaa sàcc ci moom cinq kele cinq kele cinq kele heure ma contacté te li ñuy contact matul dix minutes mais heure bu ñu contacté dinaa sàcc ci moom cinq kele daa mën a bëre Modou loo jël tànk bi teg ko ci digg bopp bi taxul nga daan ko wër ko ndomb taxul nga daan ko kooku dafa mën a bëre Modou champion la ndaanaan la te boo yëpp moo leen gën a oos Aïcha collecteur waaw mu ñëw ci Tapha waaw di woowaat ñëpp rek di woo waa parcelle sama mafia bi gis nga booy tout tànk yi ñu maa ngi leen di woo ñoom ñëpp waaw mafia aba caan bi noonu la demee nag waaw mafia aba caan bi balak sa ngemb dem job def sa poos rek moo loolu yaa ma gën a xam la waaw di sant sama booy waa Oyo ba ñoom Bañas Nabi Ousmane Noreyni xam nga Aziz Banana sama booy caabi da leen féete ginnaaw yàlla leen ba ngeen delluwaat surtout Bañas nga wéetal quoi Baye wóor na Serigne Touba bi mu fi nekk mange wu ma dara maa ngi koy sant bu baax Baye Niass maa ngi lay siyaar bu wér a wér Ousmane Noreyni nabi nabi naa la seet si naa leen seet si Baye bëggee leen barki alxuraan ma bëree ba pare naa fa ñëw incha allah jaajëf fàtte waa li ma fàtte mooy waa mbayaar gi ñëpp ñoom Koob Sall booy 15 sama koñ fii maa ngi leen woo ci combat bi ñoom ñëpp waaw waa mbayaar gi ñëpp ñëpp mafia bi sama booy asikoo yëpp maa la leen woo ñoom Patrice boo yëpp waaw mafia bi yëpp daal maa ngi leen waaw faqalaan bi ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di woo gaan waa quinzième ba bàyyi ma kenn Papa sama fils sama doom maa koy béggee gaan doomu dëkk bi noonu la demee jaayëf mu daan macha allah mbokk yi mi ngi noonu yaakaar naa ne Mbacke Faye lañ jël si woon ak Tapha Mbeur di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production jërëjëf